dal leen ak jàmm ci jamonoy octobre rose gi ñu toll tax na tey ba ñu bëgg a waxtaanee lu jëm ci cancer butitu njurukaay bi googee cancer ay infection yu jéggi dayoo lay màndargawoo mën a nekk ci ku jigéen ki diggante fukk ba jàpp fukki at ak juróom te virus yi ñuy duppee papillomavirus humain ñoo koy joxe te symptômes yi bokk ci ñàkkub deret gu jéggi dayoo te jaarul ci yoon diggante jigéen bi bu muy fóot ginnaaw ménopause wala sax après ay rapport sexuel rax ci dolli ay perte vaginale googe kanseeru butitu njurukaay mën na dal jigéen bu ne waaye pic bi ñu ngi ko jàpp ci diggante ñaar fukki at ba jàpp ñeent fukki at googe kanseeru butitu njurukaay mën na nag jural jigéen jafe-jafe bu dee ba ñu koy nemmeeku ci moom dafa sori lool prise en charge radiothérapeutique bi nag ak chirurgicale bi bu boobaa day laal butit bi ak yaram gi yépp tax ba léeg-léeg mu leen di jural ay jafe-jafe ngir ñu mën cee wonn lor dem sax ba si ñàkk seen bakkan fi lañuy ndar képpee bi leen numéro dig daje ba beneen yoon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 Bonjour et bienvenue. Octobre rose oblige, nous nous intéressons aujourd'hui au cancer du col de l'utérus. Le cancer du col de l'utérus est principalement dû à une infection persistante d'une durée de 10 à 15 ans par des virus appelés papillomavirus humains à haut risque et transmis par voie sexuelle. Les signes sont des saignements vaginaux anormaux remarqués entre les menstruations après la ménopause à la suite de relations sexuelles des pertes vaginales anormales, abondantes, malodorantes. Selon des études, le cancer du col de l'utérus peut apparaître à tout âge avec un pic d'incidence entre 20 et 40 ans. Toutefois, les conséquences sont nombreuses lorsque le cancer du col de l'utérus est diagnostiqué à un stade avancé. La prise en charge radiothérapeutique et chirurgicale concerne l'ensemble de l'utérus, le col et le corps et rend le plus souvent impossible une future grossesse jusqu'à causer